suuratu ibrahim alayhi salaam ci aaya bu jëkk bi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين bokk ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu nangul ñu daje bi nga xam ne moom lañ daje ab jullit heure bu daje ci zikrullah loolee da ca war a am mbég ngir la ca sunu boroom bégelaate bu dee nit ñi dañuy buuxante paas rang ngiree déglu ay woykat yoo xam ne waxi seytaane la ñuy wax loolu it coono buñ ca mën a daj teewul ñu kontaan ca yow jullit it bégal ci ne bokk na ci mbég yu yonent bi alayhi salaam doon bégale ay nit duñu daje mukk ci zikrullah ca afdalu zikri kitaabullah la gën lañuy zikre mooy téere bi yàlla bi lu dul ne sunu boroom dana yónni ay malaaka gannaaw ba dana laaj malaaka yooyu waaw sama jaam yooyu ñoom lu leen tax a toog ñu ne yàlla day ñii du benn intérêt àdduna yow rek yaa tax ñu toog di la fàttaliku mu ne waaw ndax dañ maa gis malaaka yi ne déedéet kenn ci ñoom mosulaa gis loolu it muy wane ne mbokk julit ku la wax kaay ma won la yàlla nee ko nañ dem nga won ma seytaane waaye yàlla kenn du la ko won ci kaw suuf abadan mi ngi noonu ndax mas nañ laa gis déedéet mosuñu laa gis waaw bu doon gis nañ ma nag ah yàlla day ñii seen góorgóorlu bu doon te ne gis nañ la daan gën a góorgóorlu loolu it mu lay jàngal loo jaamu jaamu yàlla bu ko yéem ndax boo demee àllaaxira xeeb ko sa jaamu yàlla lu mu rëy rëy boo demee àllaaxira xeeb ko gannaaw ba waa ñoom sama jaam yooyu lu ñu bëgg ñu ne ah yàlla day ñii luñ bëgg mooy bu ñu dee nga tàbbaleen aljanna di di loolu lañ bëgg day insha allah ñun ñëpp lañ bëgg la gën a rëy li ñuy sàkku ci yàlla mooy dee tabbi aljanna yàlla na yàlla defal ñu ko sunu borom dana laaj waaw ndax ñoom gis nañ ajjana mu ne déedéet ñoom kenn ci ñoom musul gis ajjana waaye gëm nañ ko ñu ngi koy waajal mu ne waaw ñoom buñ gisoon ajjana nag ñu ne ah yàlla day jaam yi bu doon gis nañu sa ajjana ji daañ gën a góorgóorlu lu raw ni ñuy góorgóorlu mu ne waaw ana lu ñuy ragal mbokk jullit lu ëpp ci nit yi tey li ñu ragal mooy kaso ak ñàkk ay fitna amma jullit yow la gën a màgg li ngay ragal mooy dee tabbi sawara yal na yàlla musal ñu ci ah ndax ñoom gis nañu sawara déedéet borom bi ñii kenn ci musul gis sawara mu ne waaw buñ gisoon sawara nag mu ne ah malaaka yi ne kon day daañ la gën a ragal gën a moytu la nga xam ne mooy say tere góorgóorlu say ndigal sunu borom yàlla nag ne ay yéen malaaka yi maa ngi leen di seedaloo man yàlla mi tax ñu toog maa ngi lay seede leen ne bëgg naa leen ni ñu ma bëggee àddina jiñ bëgg dinaa leen fa tabbal saware bi ñu ragal danaa leen ci musal te ñoom ñépp seeni bàkkaar baal naa leen ko ñu ngi noonu malaaka yi ne ah yàlla waaye suñ càm day moom zikir bi indiwoo ko woon daa ñoo fekk gaa yi toog ak mu toogandoog ñoom mu ne boole leen ko ci ndax ñooñu nit lañ ñoo xam ne du texee di koy ànd ak ñoom loolee mbokk di ngëneelu yàlla subhanahu wa taala yàlla nañ ko defal sunu jataay bi ak jataay yi bépp jurit ju daje ca yàlla tax bismillahi arrahmani arrahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن بروم سبحانه وتعالى مني alif lam ra yàlla moo xam lan la namm ci loolu kitaabun anzalnaahu ilayk lii de téere la boo xam ni ñun yàlla ñoo ko wàcce ci yow li tuxrija annaasa min azulumaati ila nuur ngiree nga génnee ci nit ñi ci lëndëm yi jëme leen ca leer ga bi izni rabbihim waaye loolu lépp ci seen ndigalu boroom ila siraati alazizi alhamid jëme leen ca yoonu ka not lépp ci kàttanam ga ka yeyoo mboole mi cant muy al aziz alhamid mooy allahi lazi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard mooy yàlla mi nga xam ne ñeel na ko lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf wa waylun lil kafirina min azabin shadid ca alkaange day dana ñeel yéeféer yi ci mbugal mu tar boo xam ne mi ngi leen di xaar allazina yastahibuuna alxayaata addunya ala al axira mooy ñi nga xam ne dañoo gënale dundug àdduna gi ca alaxira wa yasudduuna an sabilillah di fegaate ci yoonu yàlla wa yabguunaha iwaja di sàkk yoon woowee muy nekk yoon wu jëng ulaika fi dalalin baid ñooñu day ñoo nekk ci réer gu sori ga mi ngi noonu mbokk sunu borom ubbee ne téere bi li mu ubbee lu bari ci saari alquran alif lam ra la gën a mucc ayib mooy yàlla xam lum ci namm borom bi fu mu ko waxee nag tàgg na ca ab téeréem alif lam mim zalika alkitab yasin wal quran taha ma anzalna alayka alquran ila axiri mooy toujours day tàggub téeréem loolu mbokk téere boobu la sunu borom ni ñun yàlla ñoo ko wàcce te xam ngeen ni sunu borom yàlla ci kattanam ci xikmaam lu mu jagleel boppam ne ñun ñoo ko wàcce te loolu it léeg-léeg di question yu doomu aadama yi di laaj lu tax sunu borom di wax ñun te ñu ne yàlla kenn la loolu lañ cey jëkk a wax mooy kilifa ci làmmiñ yu bare bare buy wax du wax man kilifa day wax ñun ndax day wone ni ay ndigalam boo ko moytuwul du question na moom ngay dajeel waaye moom daa am lu màgg lu nekk ci gannaawam loolee muy benn ñaareel ba itamit alxuraan dafa may étape sunu borom ko wàcce ci jibril jibril ñëw wàcce ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ay malaaka yàlla moo wàcce alquran léegi lan mooy njëriñu alquran ndax mooy ku dee ñu wàcceel ko ko ndax mooy kuy sanc sa kër ñëw jàng ko fa ndax balaa kenn tudd sa doom jàng ko fa mbokk loolu quatre-vingt-dix pour cent ci jullit ñi léegi seen wàcc alquran boo ko déggee loolu moo ko waral mooy dañ koy jàngal ay néew ool ko alquran dafa ñëwoon yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngiree nga génn nit ñi ci lëndëm yi lëndëmi kéefér lëndëmi bokkaale ak borom bi subhanahu wa taala ci lëndëmi réer yi gannaaw ba ci lëndëmi tooñeente ci seen biir ndax loolu it ak lëndëm la aw zulm zulumaat nooy def ba nekk ak waa kaw suuf ci jàmm xatta ba yu may nan ngay def ak ñoom ci jàmm yooyu yépp ngir moytu tooñ ca la alquran ñëw ngir génn ci nit ñi yóbbu leen ci benn leer bi nga xam ne amul bu ko ñaareel mbokk kaw suuf genn leer moo fi nekk muy leer gu alquran leer amul ca tawraat bi yahudi yor amul ci injil amul ci leneen lu ñuy tudde ak njub lépp lu mu mën a doon ci kaw suuf tey mi ngi bokk ci zulumaat benn leere fi am muy alquranul karim sunu borom yàlla subhanahu wa taala loolu kon ñu xam ne moom mooy en jubluwaayu alquran ci kaw suuf lii it day wone sunu borom mu ne bi izni rabbihim mooy yonent lu mu éloquent éloquent mooy lu mu am am fasaha lu mu am am xikma alquran ji jóge ci yàlla kenn munu caa jubee lu dul ko yàlla jubal yàlla na yàlla boole ñu ci ñum jubal moo tax mu ne bi izni rabbihim ni waroon yonent bi alayhi salaam jéega ko ñu bari jubuñu loolu nag fan la leen alquran jëme mooy ci yoonu al aziz muy sun borom borom kattan gi nga xam ne su ko neexoon ñépp jaamu ko kenn du ko moy waaye mooy borom kattan gi nga xam ne képp ku jaar ci yoonam dana la teral adduna teral la alaxira moo tax mu ne walillahi al izza wa li rasulihi wa lil muminin borom boobu it mooy alxamid mooy ki yoo cant ci melokaanam yi ci turam yi ci jëfam yi lépp lu mu jëf rek sant moo ko ca ñeel subhanahu wa taala koo santit la nga koy sant yàllaa ko def mi ngi noonu jàll wa ala borom boobu gis nañu ne nee na mooy yàlla mi nga xam ne mooy ki moom asamaan yi mooy ki moom suuf moo moom it lépp lu nekk ci asamaan ya moo moom lépp lu nekk ci biir suuf sawaun ay malaaka lañu wala ay yonenti lañu ab sëriñ lu màgg màgg sa bopp xamal ne jaamu yàlla la subhanahu wa taala boo xam ne amul sañul mënul dafa dépendre ci yàlla li neex yàlla rek mooy dogal ci lay dogal ci moom borom boobu nag mu ni alkaanga ñel na yéeféer yi ci mbugal mu tar mu leen di xaar ay ñu weddi alquran boobu lii mbokk dañuy wone ne kon ab jullit benn war ngaa gëm alquran waaye bul yem ci gëm alquran rek waaye ngal la waay xoolal leer ga alquran di woote mooy lan alquran ab lettre la bu yàlla wàcce ci yow lettre boobu ay ndigal moo ca nekk ak ay tere ak ay pas-pas ay xabaar ngal la waay yow jullit yow njaago nga séeréer nga chinois nga espagnol nga loo mën a doon war ngaa jéem a benn jàngi arab ngiree mën a dégg alquran loolee jafe na ci yu bari war ngaa dem ci koo xam ne xam na lu alquran di firi mu firil la ko ci njaago wala ci wolof wala ci lum mën a doon comme ni ngay xamee ne noonu la nar a ñëwee ci kanam sunu borom yàlla nag subhanahu wa taala mu ne yéeféer yi seen màndarga mooy lan dañoo gëne la àdduna ci àllaaxira loolee mbokk mooy yéeféer lu tax ñoom gëmuñu àllaaxira kon seen kër kër yépp ru àdduna la waaye li metti mooy lu bari ci jullit ñi roy nañ leen ci loolu ay ndawi jullit yoo xam nga gis sàggane nañu seen diine seen kër kër mooy diplôme yu bari seen kër kër mooy am dajale alal ju bari seen kër kër mooy am pal loolee mbokk julit nañu xam ne mandarga yéeféer la te mandarga texee di la tey jii lu bari ci julit ñi gëm alquran da ngay gis masalan tey da ngaa war a liggéey six heures du matin yeewu nga sangu nga waajal nga ngiree da ngay xëy liggéey amma tey le dimanche moo ne da ngaa waroon a julli fajar de da ngay nelawa nelawa nelaw ba midi nga doog a jóg kon liggéey ba ngay liggéey nga gën a fonk ci waxtu yàlla yi subhanahu wa taala loolee di mbir yoo xam ne nañ ci bàyyi xel bu baax benn jullite ngi nii ma nga Canada ma nga États-Unis ma nga feneen ma nga feneen adduna bu ne ma ngi fay wër def fa quinze jours un mois daja lay conteneur am dem na ba am nangami at xalaatul dem Makka ku mel noonu adduna moo ko gënal ila axiri ila axiri su ko defee kon doonte na màndarga yéeféer la waaye lu bari ci jullit ñi dañoo mel noonu léegi it yéeféer yi seen melokaan mooy bëgguñu lislaam loolee sunu boroom ni mooy siraatul aziz di yoonu jubbi loole da ngay gis ne dañuy fekk nit ñi ci yoon woowu jafeel ko lool tey boo demoon dëkk bu mel ne France dañuy tere jigéen ñi di muuru sunu tubaab yu weex yi nekk fii di woote woo ay christianisme da ngay gis ne seen école ya doonte ne jullit ñi def nañu erreur yóbbu fa seen i doom da ngay gis dañ naan leen bu ñu muuru solal sa courte jupe solal sa lu la neex amma la nga xam ne muy muuraay loolee kenn du ko def fii loolee mbokk moom mooy fekk nit ñi te la nga xam ne mooy yoonu yàlla donte ne boo demoon ñoom seen cosaanu diine da nga fa fekk muuraay boo demee l'évangile selon saint Paul day wax naan que la femme qui ne porte pas le voile soit tondue bépp jigéen bu génn ci gisuñu ko mu muur boppam waru garu nit ñi ma dañ ko war a woo wat ko nel mi ngi noonu dañ ko war a woo wat ko nel dégg naa nag sama benn góor di wax ni bu njëkk dañ daan toroxal jigéen ñi di leen wat nel tey jigéen ñi ñooy war ñooy fat wat seen bopp nel am déet gis ngeen bokk àdduna ni muur ba ci ko mi ngi noonu loolee kon ñu xam ni mooy fekk nit ñi ci yoonu yàlla jafel yoonu yàlla sunu borom yàlla nag subhanahu wa taala ni ñii day ñoo nekk ci réer goo xam ne réer gu sori sori la ndax weddi yàlla rek doy na amaa nag weddi yàlla benn wëlbati ko di xeex diine yàlla ji loolee moom mooy réer goo xam ne réer gu sori sori la yàlla na yàlla subhanahu wa taala musal ñu ci loolu
ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
di jéggalu ci fin page bi daf ñu rëcc sunu borom mu ne kon wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi musuma yónni benn yonent lu dul ci làmmiñu xeetam lay waxe ak ñoom li yubayyina lahum ngir mu leeral leen la yàlla bëgg fa yudillu allahu man yasha ca la yàlla di sànke ñu mu soob wa yahdi man yasha jubal ñu mu soob ay ku mu soob wa huwa al azizu al hakim te moom day mooy ki not ci kàttanam mooy ki xereñe ki wa laqad arsalna muusa bi ayatina nii la ñu yónnee woon muusa ci suñuy aaya an axrij qawmaka min azulumati ila nuur ay muusa demal génn sa xeet ci lëndëm yi yóbbu leen ca leer ga wa zakkiruhum bi ayaami llah ca nga fàttali leen lii di bisi yàlla yi inna fi dalika la ayatin li kulli sabarin shakur nekk na ci li day kawtéef ñeel bépp mu ñaakon santaakon mi ngi noonu wa iz qaala muusa li qawmihi iskuru nicmat allahi alaykum fàttaliku leen bi muusa di wax xeetam eewaay fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen iz anjaakum min aali firawna bim leen di musal ci njabootuk firawna ga yasuumuunakum suu al azab ñu leen di màndargaale di leen melale gën jaa ñaaw ci mbugal wa yuzabbixuuna abnaakum ñi ngi rendi seen doom yu góor ya wa yastahyuuna nisaakum di sàkku dundal seen doom yi jigéen yi ngiree def leen ay jaam wa fi zalikum bala'u min rabbikum azim loolu day nekkoon na ñeel leen benn natt bu bawoo ci seen boroom di natt boo xam ne natt bu màgg la mi ngi noonu mbokk julit yéefir yi arab yi dañ doon wax ne xoolal muhammad moom kat nee na waxi yàlla lay wax ca moom làmmiñu arab bi ñuy wax lay wax sunu borom yàlla nag ne man musuma yónni benn yonent loo dul làmmiñu waa xeet ba lay waxeek ñoom ngiree mu leeralal leen waaw gaa yi bi yonent bi alayhi salaam ñëwoon jàkkaarloog waa Màkka di làkk chinois ndax dana sotti waxumaa nag beneen langue bu ñu xamul loolu it mbokk kon nañu xam ni soo gisee jataay yi ñu toog ak jataay yi keneen suñuy moroom toog nga la waay xamale ne loolu moo ko waral mooy xam nañu ne li nga xam ne mooy téere tafsir yi lu bari ci nit ñi mënuñu jokkoo ci loolu su ko defee li ngi bu ñun bu ñu demee téere yooyu rek la ñuy liir ñëw di ko wax ci làmmiñ bi ñu xam am na keneen ku koy wax ci saraxole feneen am na koy wax bambara feneen ku koy wax nangam ndax loolu mënul ñàkk ngir nit ñi xam amma bu dee nit ñi dañ leen dajale rek di wax arab masalan sunu xutba jumaa yu bari imam day ñëw commencé làkk arab làkk arab làkk arab suñ demee ba xam ne xutba baa ngi waaj a jeex lu mu wax rek gaa yi amin amin amin sunu mag ñu bari li ñuy tëj seen xutba te loolu mi ngi jógoon ci Omar ibn Abdul Aziz inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan amin wa yanha anil fahshai wal munkar amin ya'izukum la'allakum tazakkarun amin de loolu ngeen di dégg lu tax parce que xamuñu li muy wax amma bu doon da koo wax ci wolof kon duñu wax amin dañuy xam ne lii ak kuppaati la am déet Senghor nem si yàlla sa Senghor daa ñëw Kébémer def campagne électorale di def discours tubaabam gaa yi tàccu di tëgg sabar yi ba mujj mu ne je viens de recevoir une très mauvaise nouvelle le décès de mon ami amical Cabral gaa yi ne way way way way rëg rëg rëg rëg rëg mu ne ee daama ne dañ maa wax léegi sa xarit amical Cabral dee na mbooloo mi ne xeram ndax mi ngi doog wax lu ñu dégg am déet loolu mooy mbir bi su ko defee kon mbokk nañu xam ne bokk na ay erreur yoo xam ne seytaane da koy tasaara ci bopp nit ñi alquran kenn du ko firi waaw gars yi alquran buñ ko firiwul ñu déggul arab fu ñu jëm su ko defee loolu ay erreur munta paase loolu seytaane moo ko dogal ci bopp nit ñi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi li yubayyina lahum ngiree mu leeralal leen loolee nag bu yonent bi leeralee ndax ñëppay jub déedéet yàlla dana réeral ñu ko neex jëbal ñu ko neex ñan la yàlla réeral mooy ña préparé nangu la yonent bi wax jublu ci yàlla jubal leen yazidu llahu lazina ihtadaw huda amma ña nga xam ne dañoo dummoo yu ciipate sunu borom yàlla réeral leen loolee mbokk mooy payu la sunu borom yàlla dogal ci ay jaamam borom boobu nag mooy al aziz bi nga xam ne niñ ko waxee dara tewu ko moo dem pale firawna kàccoor ba jubal jabaram dem kër nuux réeral doomam réeral jabaram al aziz lu ko neex def mooy alxakim moo xam kan moo yeyoo njub alxakim moo xam kan moo yeyoo ak réer subhanahu wa taala ci loolu la ñuy waxe ni noonu la yónnee woon yonent yàlla muusa jox ko tawraat ne ko demal ci sa xeet ñi ngi ci ay lëndëm nga génne leen ci génne leen ci lëndëm googu te mooy waa bani israil bi leen yàlla musalee ci firawna ñu dem léegi ci ci ci désert bi daal di bew di jaamu ay nag ak yu ngeen xamul sunu borom ne Muusa demal nga génn leen ci lëndëm yi ca nga fàttali leen bisi yàlla yi mooy fa yàlla subhanahu wa taala jaar ak ñoom ca mbokk da ngay gis ne bani israil sunu borom jaar na ci ñoom ay jaar-jaar yu baree bari bokk na ba ci yàlla di wax mooy fa firawna jaar ak ñoom waaye balaa ca yàllay ñëw mu ne nekk na ci loolu ay kawteef ñeel képp koo xam ne nii da ngay muñ kat da ngay sant kat sunu borom yàlla mbokk ay jaamam da leen di dajaleel léeg-léeg mu indi lu neex léeg-léeg mu indi lu naqari loole sunu borom wax ci aalu firawna ci ci ci bani israil ay Muusa ba muy wax ne fàttaliku leen bi leen Firawna notee def leen ay jaam xoolal lu gën a métti lii def leen ay jaam benn ngoog bu doon ca la yem baax na waaye seen doom yu góor yi mu koy rey nan lañ leen di rayee ndax dañ leen di dajale sànni géej bu doon looloo sax day metti na waaye dañ leen doon rendi seen kanam ni ñu rendi xaru tabaski nga gis ñu rendi sa doom yu gën mënoo ci dara sa doom yu jigéen ñu jël yóbbu ca chantier mënoo ci dara loolee nekk natt bu rëy boo xam ne tegoon na leen ko gannaaw ba sunu borom yàlla wëlba ci loolu alak firawna def bani israel nguur alal de mu donnale leen ko léegi nag mu ne lii day ak kawteef mi ngi ci ñeel aji muñkat ñeel aji santkat loolu it mu wane ne jaami yàlla yi ci loolu la ñuy sax lii ba ko yàlla yi wax ak léegi ëpp na quatorze siècle waaye mbokk nañ xool siècle bi ñu dund mooy manqué na ma téeméeri at yi ñu dund commenceel tey mille neuf cent onze hein ba sunu jamono tey di un siècle la muy téeméeri at lan la ci yàlla def lu ñu gis gaa yi xoolal li nga xam ne ni moo jiitu woon sunu maam yi lii nga xam ne mooy njàppum jàmm mi ndax fàttaliku ngeen loolu tubaab yi ñoo jóge fële ñëw di jàpp sunu maam yi yéen a ngi dégg waykat boobu di wax naan démb metti na ah dañ daan tëdd ba guddi jot buur tëggum ndëndëm na jóg leen dëkk bi ku fi fanaan di jaam di dégg ngeen way woowu day mag ñi ñoom xam nañ li may wax mooy noonu jàpp gurguru say jabar say doom ñu jàpp leen yeew dajale jaayi tubaab yi jaayi naar yi la daan xew gore képp ko fa dem ñu nettali la ko fokk nga jooy gis ngeen loolee duré na presque lu jege ñetti siècle ba sunu borom yàlla daal di koy jeexal mu jeex mais après lan moo xew mooy guerre yu metti quatorze dix-huit ndax kenn déggu ko ci yéen sun maam yi sonn ci loolu africains yi kenn xamul ñaata million trente neuf quarante cinq ñëw xoolal sun maam yi lañ ca deeyee la nga xam ne mooy fitna yi fi amoon la crise des années trente ndax yéen dégg ngeen balu ndakaaru yi kon loo xam ne matugul téeméeri at fitna yu dul jeex am na fi loolee tey sunu borom dalal na loolu daal di ñuy indil la nga xam ne mooy sunu jàmm ji ah loole it muy wone ne yow jullit war ngaa waajal sa bopp di sant yàlla ci ay xéewalam waaye itamit di muñ la nga xam ne mooy ay nattoom mooy sabbar shakur moom la yonent bi di wax ne ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu xayr yéeme na mbir jullit léppam yiw la ndax yàlla da koy teg natt mu muñi yàlla teg ko xéewal mu sant yàlla te yow boo xoolee sa dund nga xool ci gannaaw wallaay am na bis yu jafe yoo xam ne traversé nga ko waaye it am nga bisu xéewal yoo xam ne traversé nga ko àdduna noonu rek la wa tilka wa tilka al ayyaamu daawiluha bayna naas seen borom ni yàlla ne ne bis yaa ngi noonu heure boo gisee ñu dajaloo di foo di di di reetaanu ko bég am na ñoo xam ne ña nga dajaloo di jooy am déet fee dëj la fee mariage la fee ku ku gaañu la fee ku jóge ci tukki la ila axiri sunu borom noonu lay defee lool nag yow julit da ngay war a boole sabar shakur mooy tar ci sant waaye tar ci muñ borom bi subhanahu wa taala kon noonu la waxee mu joxe ñu ci exemple bu mag boobu nga xam ne nii moom mooy ah Moussa ak bani Israël mi ngi noonu.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
sunu borom subhanahu wa taala mu ne وإذ تأذن ربكم fàttalikul ba muy xamle sa boroom di yëglu ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santee day dinaa leen dolli wala in kafartum inna azabi la shadid waaye cay su ngeen ma weddee samay mbugal lu tar la wa qaala muusa in takfuru antum wa man fi l ardi jamia muusa ne su dee da ngeen weddi yéen ak waa suuf mboole seen fa inna allaha la ganiyun hamid seen borom yàlla day mooy ki woomle mooy ki yoo cant yépp alam yatikum naba'u alladina min qablikum xanaa dikkalu leen xabaaru ñi leen fa jiitu woon qawmi nuuxin wa aadin wa samud mi ngi noonu walladina min ba'dihim ak ña nga xam ne ñoo ñëw seen gannaaw laa ya'lamuhum illa allah kenn xamu leen ku dul yàlla jaa'athum rusuluhum bil bayinat daf leen dikkaloon seen yonent ya ca lay yu leer fa raddu aydiyahum fi afwahihim ñu delloo seen loxo yi ci seen gémmiñ ya wa qaalu inna kafarna bima ursiltum bi ñu ne ñun dey weddi nañu li nga xam ne yónnee nañu leen ko yónnee nañu leen ko wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi murib te ñun dey ñi ngi ci sikki sàkk te la ngeen di woo jëmeñu muribin di nekk aji tar ci sikki sàkk mi ngi noonu mbokk sunu boroom nee na su ngeen ma sante day dinaa leen dolli su ngeen ma weddee samay mbugal lu tar la moo gaa yi naka la ñuy sante yàlla comme na yàlla nee na suñu sante mu dolli ñu nañu koy sante ndax dañuy dem ñu togg suñuy mbanay puuj pàcc ah daa di defar suñuy café góor ak jigéen ñi jaxasoo ñuy commencé di tàccu di fecci sànq julli sànq lépp ndax lii mooy sant sunu borom jalla wa ala laa wallahi mbokk sunu borom nañ koy sante wax na ko i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min ibadiya shakur jëf leen la nga xamee ni ni mooy ak sant te mooy sant yàlla mooy nga yëg xiiwalu yàlla ci yow ne ci yàlla la jóge loolu xol bi moo koy def làmmiñ bi gërëm yàlla nga sant yàlla ci ay xéewalam am na ñu bari ci doomu aadama yi suñu amoon fukki étage ñaar fukki oto ak luñ mën a doon foo leen fekk ña ngay jàmbat mbokk loolu musiba la li da ngay sant yàlla ci lim la defal ay xéewalam gannaaw bu xol bi defee wàllam ca mooy yëg ne yàlla dong moo joxe xéewal gi làmmiñ bi sant ko jëf ji nag daal di jóg mooy lay xéewal nga teg ko fa neex yàlla sant yàlla muy xéewal yàlla def ko fa neex yàlla ki nga xamee ne nii waxtu julli jot na noddkat bi taxaw ne hayya ala salah assalaatu xayrun min annawm mu daal di ñod ñod di mbalaanam gën a sanguwaat kooku santul yàlla ci jëmmam jooju am déet daa waroon a jóg dem ca wanag ba laabal ko dem wuy ji borom bi subhanahu wa taala ki yàlla wërsëgal alal mu gis bunt boo xam ne ngërëm la waroon na caa dimbali ay mbokk julitam wala jaamoo ci yàlla mu rënk ko ci banque bi kii santul yàlla ci loolee lépp loo xam ne yàlla may na la ko ci sa nopp yi war nga caa sant sa boroom mooy bu ci déglu lu dul lu neex yàlla bët yi santal sa boroom bu ca xool lu dul la neex yàlla tànk yi sant ci sa borom bul dem lu dul fi neex yàlla ay mooy mboolem xiiwal yi la yàlla defal nga delloo ko fi neex yàlla loolee mbokk la gën a jafe ci jafe ca la bokk moo tax yonent bi alayhi salaam waxoon Muaz ibnu Jabal yow day dama laa bëgg bul fàtte foo jullee ba pare na nga wax yàlla yàlla nag ma dimbali ca ma lay fàttaliku yàlla nag may dimbali ca ma lay sant yàlla nag ma dimbali ma jaamu la jaamu goo xam ne jaamu gu rafet la ay jaam bi da nga war a ñaan yàlla dimbali la ci sant la ndax nga sant ko lu tax mooy sant yàlla mooy mboole mi xiiwili yàlla nga teg ko fa neex yàlla lii mooy sant yàlla la in shakartum la azidannakum bu ngeen may sant day dinaa leen dinaa leen dolli da ngay gis ne yonente bi alayhi salatu wasalaam mas na jàng aaye bi ci ba demee mus ci musnad ahmad ma nga fa benn waaye dafa ñëw ab kaw kaw yow ah yow yonent yàlla bi la utal ma dara waay yonent bi alayhi salaam jël benn tàndarma jox ko donte ne tàndarma am na yu ci xaw a baax mën a dànku xiif ah bi mu ko joxee tàndarma bi mu ne ab tàndarma nga may jox ah daa dina wëriñ dem yoonam gis ngeen beneen waay ñëw jataay bi tasagul ñoo ayam yàlla yónni ma de dama bëggoon nga am la ma mën a làmbal wa- yonent bi génne benn tàndarma jox ko mu ne ah alhamdulillah tàndarma bu jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di koy booleeg benn xale na ko ñu dem ci yaay ummu salama am na ñeen fukki dërëm yi mu gardé woon foofu mu jox ko arab yi bii gis ngeen léegi nag kee nga xam ne daa gedd xoolal nam ko xañ amul tàndarma amul dara kii ab tàndarmaam bi mu ci sante yàlla yàlla dolli na ci ñeen fukki dërëm am déet loolu kon mooy la in shakartum la azidannakum loolu it muy doomu aadama lu la yàlla féetale ci àdduna xoolal ña nga tane soo xoolee ña nga tane rek santaat yàlla su ko defee ca la yàlla subhanahu wa taala di la yokk ay xéewalam amma bu dee ne da nga doon koo xam ne nii santoo xéewali yàlla yàlla buy nangu ay xéewalam doo xam fu muy jaare borom boobu nag subhanahu wa taala ni Moussa waxoon ne xeetam ne leen gis nga bu doonte ne yéen ak waa suuf yëpp da ngeen weddi sa borom yàlla mooy alxani gaa yi yàlla mooy koy woomle moo tax ñëw na ci xadisul qudsi mboolemi jaamam yi buñ dajawoon ci xolu ki gën a baax ci ñoom muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokkul ci nguuram gi dara buñ dajawoon ci xolu iblis yokkul wàññiwul ci nguuram gi dara lii mooy la nga xamee ne moom la ab dirit war a gëm ndax xam ngeen ne ñi jàng tuuti mooy la planète terre bu doon dafa effacé wu ci ah li nga xam rek yow day mel ne dara jógewul ci nguurug yàlla ci kon yàlla boobu muy alxani doonte ne yàlla ba boo ko sant nit leneen lu dul yow mi ngi koy sant lu dul nit ak jinne rek ñi ngi sant yàlla mi ngi noonu malaaka yi borom bi jin yi ñanaaw yi amul lenn loo xam ni in min shay'in illa yusabbihu bi hamdi te loolu la yàlla wax day walakin la tafqahuna tasbihahum loo mën a gis te du nit ak jinne mi ngi sabbal yàlla di sant yàlla jalla wa ala kon mooy alhamid mi ngi noonu jalla wa ala borom boobu nag kon moo tax mu ne xanaa dikkalu leen woon ci yéen ñi bañ a sant ca sant yàlla gi jëkk mooy wéetal ko bañ ko bokkaaleeg dara xanaa dikkalu leen woon yéen ñi bañ a sant xabaaru ñu leen fa jiitu woon mooy xawmu nuux sant ñu woon yàlla ay jaaruñu woon fa neex yàlla xawmu aad sant ñu woon yàlla ndax jaaruñu woon fa neex yàlla wa samuud naka noonu ak ñeneen ñu ñëw seen gannaaw ñoo xam ne kenn xamu leen ku dul yàlla te mbokk li fi jaar yàlla rek moo ko xam ñaata doomu aadama jaar ci kaw suuf yàlla rek moo ko xam bu ñu tubaab yi yóbbaale nit ñi ñu ngi ñëw ci kaw suuf yaa quatre milliards d'années dañuy wax lu leen neex année yële maa ngi fi dégg ñu leen wax naan à peu près nee nañu li jaaragul ci kaw suuf nekk na quatre vingt sept milliards ci ay doomu aadama dañuy wax lu leen neex rek laa yaalamuhum illa allah yàlla rek moo xam li fi jaaroon waaye yow it mbokk da ngay xam ne bis dana ñëw ñu fàtte la gars yi Sénégal ñu fi dëkkoon junni at ci gannaaw ndax man ngeen ma cee wax kenn ah gis nga ñun ñii dañuy dem ba mujj ñun ñëpp ñu fàtte ñu waaw su ko defee kenn rek la dul fàtte muy sa borom ak say jëf mi ngi noonu loolu fi mu ne la am moom ràpp na waaye say jëf ba ma nga ànd ak yow foo mën a jëm xaw mu nuux ñi nga seen jëf waa aad waa samood sahabatul kiram ak yéefire yi àndoon ak yonent bi ñoom ñépp ñi nga ànd ak seen jëf ammaa nag nit ñi fàtte nañu leen laa yaalamuhum illa allah borom bi mu ne seen i yonent dañ ne leen dikkal loon ci layu leer ñu daal di tëj seen gémmiñ siet téet mu ndax dégg ngeen waa ji li muy waxa benn yàlla kenn la mënuñu ko woon a dégg yàllaa ngi wax ak ñoom yàllaa ngi ci kaw asamaane ñoom ñu nekk ci kaw suuf mënuñu ko woon a dégg gannaaw ba dañuy dee dekk mënuñu ko woon a dégg moo tax ñu tëj seen gémbeñ ga daal dina ñun day weddi nañu li ngeen di woote jëme te sikk sàkk nañ gën jaatar ci sikk sàkk ci li nga xamee ni nii yéen a ngi ñi cay woo te mbokk loolu da ngay gis ne mooy mbugal bu tar ndax diine lislaam kenn du ko weddi ci yaqin ku koy weddi rek ci sikk sàkk nga koy weddee rawatina ñu nekkoon ak yonent yàlla yi ci xam ne du ñu fen waa màkk ñoo gënoon a xam ne muhammad al amin du fen lu mu wax dëgg la kon kay chakk lañ defoon bañ a gëm moo tax sunu borom yàlla wax loolee nga xam ne nii wax na leen ko subhanahu wa taala
قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين
sunu borom jalla wa ala mu ne qaalat rusuluhum afillahi shak noonu la yonent yee tontoo ne waaw ndax sikk sàkka dana nekk ci yàlla faatiri samawati wal ard yàlla moom nga xam ne moo bind asamaan yeeg suuf faatir mooy ko bind ci xoolu ko fenn mooy ko fent yaduukum li yaxfira lakum min zunubikum mi ngi leen di woo ngiree baal leen lenn ci seeni bakkaar wa yuaxirakum ila ajalin musamma waaye it yéexe leen ba ci dig boo xam ne tudd nañ ko ba pare qaalu in antum illa basharun misluna yéeféri ne hey yéen du ngeen dara lu dul ay nit comme ñun rek turiduuna an tasudduna amma kaana yabudu aabauna bëggu leen rek lu dul ngiree fet ñu la nga ca la nga xam ne sun bàyyi dañ ko doon jaamu léegi nag faatuna bi sultaanin mubin indil leen ñu la nga xam ne mooy lay yu leer ca mooy ay kawtéef yoo xam ne dañ leen ci mën a gëmee mbokk yeneen ci bi nga xamee ne yéefir yi nee nañu sikk sàkk ci ñoom bokk na luñ leen tontoo ndax yàlla sikk sàkk dana nekk ci moom benn ndax nit mën naa sikk sàkk ci ne yàlla kenn la loolee da nga caa sikk sàkk sunu borom yàlla ne xanaa xamuleen ne yàlla moo bind asamaan yi ak suuf ndax mas nañoo gis keneen ko woote woo ne bind na asamaan yi ak suuf kenn mus ko woote woo ndax mas nañu dégg ko woote woo ne bind na lenn ci lu nekk ci kaw asamaan yi ak suuf ku ngeen mës a dégg mu ne yeneen te sàngam moo bind gileem yi sama sëriñ sàngam moo tàllal géej gi sama xutba sangam moo samp montagne yi ndax kenn mës na ko woote kenn mës ko woote kon lépp lu nekk ci ko asamaani suuf yàlla yi rek la loolu muy kone kon sikk amul ci ne yàlla kenn la benn ngoog ñaareel ba ndax fillahi shakk ci ne yàlla mën na yónni yonent ca loolu da leen a jaaxaloon mooy nit comme ñun ba pare ne yàllaa ngi wax ak moom alhamdulillah ñun ñu tombeek li nga xam ne mooy télécommunication tey as xott nga teg ko sa nopp di wax ak koo xam ne ma nga tey ci biir Washington wala ma nga tey biir Moscou loolee tey ñun amuñu sikk sàkk ci ne ah ndax yàlla da nekk ci kaw di wax ak doomu aadama ci kaw suuf ñaareel ba mooy afillahi shak mooy nit ki bu dee ba nekk poussière loolu ku ko mën a dekkalaat moo gaa yi yàlla mi ko bindoon ci jël benn ndax mënu ko dekkalaat mi ngi noonu mooy bam ñu waxee alaysa zalika bi qadirin ala an yuhiya al mawta yàlla mi bind doomu aadama min nutfa min alaqa ila axiri ndax kooku mënul dekkal ñi dee woon ahakay kon afillahi shak la innahu ala kulli cheyin qadir borom boobu nag ne moo bind asmaan yi suuf ci mbaaxam mi ngi woo ay jaamam ngir baal leen lenn ci seeni bakkaar ay mboolem la jiit woon kenn rek la yàlla baal ay bakkaaram yépp muy sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom léppam la ko yàlla baal lam def ak loo nar a def lépp baal naa la ko keneen amu ko ku dul moom amma yéen yéefir yi yow criminel bi rey cinquante personnes yow mi bombardé woon sax ay dëkk yow mi nga xam ne mbon gu ne def nga ko bis boo tuubee yàlla baal la ma gaa yërmande mën naa passé lii déedéet mi ngi noonu waaye negam yéefir bi yàlla nga koy woo ngir mu baal ko waaye yow julit bu sàggan bi nag ana luy sa mbir mooy yow julit bu sàggan bi yaa ngi jaay sa bopp yaa ngi naan sangara yaa ngi agressé ay waay kaay tuub dellu ci yàlla gis ngeen yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn guddi lu dul buñ demee ba ceeru guddi ga sunu borom dana woo ay jaam yi ay ko may ñaan ma may ko ay kuy xettali ko ma xettali ko ay kuy tuub ay bakkaaram ma baal ko ba baa fajar di jot bal yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na lu gën a neex loolu nee na inna allaha la yaqbalu la yaqbalu tawbata abdin ma lam yugargir doomu aadama tànk sukuraata goo rek sunu borom mi ngi la may délai pour waxal la ne boo tuubee ma baal la mi ngi noonu sa noyyi gi mi ngi demee ko dikk xamal ne kon boo tuubee yàlla baal la boo demee ba sukuraat nag la yàlla doo ko tëj bunta tuub kon tuub leen dellu ci seen boroom yad'uukum li yaghfira lakum min zunubikum lii bi nga xamee ni nii am na it borom bi ne gannaaw ba dana leen yéexe ba ci dig boo xam ne bu ñu tudd la ndax xam ngeen yonent yi jiitu woon sunu borom subhanahu wa taala daf leen wax ñaari mbir nee leen seen xeet ñu gëm topp leen ma wàcce leen ay xéewal suñu bañee mu mbugal leen xeet ya bañ yàlla mbugal leen ñoom ñépp mi ngi noonu léegi itamit moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu xeet bi na ngeen tuub su ko defee yàlla yéexe leen du indi mbugal ci yéen ba baa dig bu ñu xam alhamdulillah sunu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne ñaan na yàlla yàlla nangul ko ak ñaanam ne yàlla sama xeet yàlla boo ko alak ak lu mu mën a def yaa nga yàlla na nga leen bàyyi ba ñëw yoomal qiyaama waaye àdduna yàlla boo leen boole ci alkaange loolu it moo tax waatal ne lu taxoon ñu ala qawmu nuux wala qawmu luut wala qawmu saalix xeetu yonent bi def na fukkam waaye nag ci yërmande yàlla yàlla du boole xeet bu mukk alak leen amma nag su ko neexee fekk ab dëkk mu alak ko fekk ay nit mu alak leen waaye xeet bi du ko boole mukk alak ko comme na mu defoon ak xeet yu njëkk ya dana leen yeexe ba ci dig boo xam ne nii dig bu ñu tudd la doonte ne bu la yàlla alagul it bis da nga mës a dee loolee moom ñépp ci bokk yem léegi bi nga xamee ne yonent yi wax nañ wax ju sell ji nga xam ne dara waru ci woon a tege lu dul rek ñu daal di nangu waaye lan la yéefaree tontu yéen nit ngeen rek comme ñun ca loolu luñ ci jëblu mooy yàlla bu bëggoon a wax ak ñun day yónni malaaka mi ngi noonu ndax ñoom gëmoon nañu malaaka yi amma yéen nit ren rek comme ñun te loolu it mbokk di bind boo xam ne nañu xam ne yonent yàlla yi loolu lañ doon woote qul innama ana basharun mislukum mais li yàq diine yi ñu ci tey mooy waxuma yonent yàlla yi waaye xatta borom xam-xam yi dañ leen a ëppale nit simple mbokk borom xam-xam yi dañ leen ëppale nit simple wax naa leen ko fii sama mbokk bi Bilal Thiam mas nay discuter ak benn góor ci kenn ci sëriñu réew mi muy wax ci moom lu yéeme Bilal ne ko ah xanaa du nit mu ne ko comme danga ko bëgg a def nit nag kon waxtaan bi na yem fii gis ngeen ca mooy lu ëpp ci doomu aadama da ngay gis naan nangam yaayam ci zahir yaayam ci baatin papaam ci zahir kaza wa kaza ay defuñu ko muy nit simple loole nag moo tax lu ne ñu jiñ ko ko foofu la ñu yóbbu woon ba isam na Maryam ñu ne doomi yàlla la loole wax ca lu kenn xamul waaye mbokk da ngay gëm ne yonent lu mu foor foor nit kese la lii dal nit da koy dal day feebar day am ay problème dafa dund bis dana ñëw mu masa dee lan moo ko teqale ak ñun qul innama ana basharu mislukum yuha ilayya yàlla moo ma wax yu ngir ma jottali leen keneen kum mën a doonit borom xam-xam loo foor foor dañ ñuy nax rek gaa yu xutbu yuy naaw di fanaan ne arash wallahi amul xutbu yoo xam ne dañuy wër adduna bi wallahi amul koo xam ne ma nga ca xabroom ba tëdd ci yow mi nekk Washington boo ne yaa Cheikh Thiam wuy si la ke nekk Canada yaa Cheikh Thiam wuy si la wallahi amul dégg ngeen ko seeni baay mu sax ci seeni nopp waaye wallahi loolu amul in qul innama ana basharun mislukum yéefér it lu ñu waxoon in antum illa basharun misluna mi ngi noonu da ngeen ñoo bëgg a fekk ci li nga xam ne sunu bàyyee dañ ca nekkoon te it yéeféer yi quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ñoom la leen tey jaar ci yoonu njub mooy lan mooy bëgguñoo bàyyi la seeni bàyyi nekkoon bëgguñoo bàyyi la seeni bàyyi nekkoon wallahi dëkk naa ak yéeféer fii ci unité 21 bis woo naa ko na ko diw waaye kaay na nga tub dugg ci lislaam mu ne ah ma bàyyi sama diine bàyyi ñoo fekk si leen yéen seen diine loolu mooy règle générale au lieu que ñu xool lañ leen woo jëmee ndax baax na ak baaxul loolu du problème mais maadaama diine l'islam bala nga ciy dugg da ngay bàyyi la nga nekkoon foofee la problème bi nekkee amma biñ demee nag ba nit ñi comprendre tuñu l'islam da ngay gis benn waaye taxaw na ci télévision nationale naa ñun ay jurit lañu waaye rek li ñu donne woon sunu maam ci xam yeeg yooyu duñ ko bàyyi xam ngeen li may wax am déet mi ngi noonu ca loolu mbokk yonent yi seen problème xam nga moo nekkoon lan mooy bàyyi leen xërëm yi bàyyi leen statue yi bàyyi leen lépp lu ngeen nekkoon te ñoo dugg ci diine mais bu doon yonent yi dañoo ñëw rek ni nit ñi kaay leen ñu dolli li ci jaamu yàlla benn yonent du am ak xeetam problème am déet loolu ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee ne kon yow boo jàppee ne da ngaa judd woon fekk say maam di jaamu ay xàmb di jaamu ay guy nekk ay animiste diine l'islam ñëw nga jàpp ne animisme boobu mën nga koo jël boole koog l'islam di julli di wodd ak makka waaye du tuural xamb yi du tuurul géej gi di wër guy gi da ngay wax lu la neex mbokk julit laa ilaha illallah la mi firi mooy da ngay weddi leneen lu ñuy yaakaar leneen lu ñuy ragal ci du yàlla doog a jàpp ci l'islam looloo tax yéefi lu ñu wax turiduuna an tasudduuna amma kaana yaabudu abauna li ngeen bëgg mooy ñu bàyyi la suñ bàyyi nekkoon léegi nag su dee ne yéen am ngeen kattan ci loolu ci ne am ngeen preuve indi leen ñu kawteef te kawteef ba comme ni ngeen ko yàgg déggee mooy loo xam ne ñoom ñoo koy tànn waaye yàlla musul yónni benn yonent lu dul jox na ko kawteef waaye yéeféer yi ngir bëgg a bew fokk ñu daa di wax ne indil kawteef sangam dellul suratul isra lañ doon laaj yonent bi soo bëggee ñu gëm la na nga génne fii ay xuri la nga xam ne ni mu may ay xuri dex ay dex yu ball na nga am ay tool na nga yëg kaw asamaan na nga kaza wa kaza loolee mooy la nga xam ne mooy lay yéeféer yi doon wax sunu borom yàlla nag ne boo gisee yónni wuma kawteef ci yéen yónni woon naa waa samuut kawteef bu leer ñu weddi ko loolu rek moo tee may yónnee ay kawteef ndax su ma yónnee kawteef rek alkaange moo cay tegu ngir yërëm ay jaam yi moo tax yónneewul kawteef mbokk lii ab dagg sante la buy nekk diggante yonent yi ak seen xeet xam naa incha allah dañ koy yeggale àllarba ji di ñëw ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla boole ci ñu gëm ab yonentam yàlla na yàlla saxal ñu ci babaa ñuy daje ak moom wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad mu ne naka la l'islam wax ci li ñuy tuddee mariage précoce mooy teel a maye la nga xam ne moom mooy xale yi ala kulli xaal mbokk dafay am mbir yoo xam ne dafay nekk sous forme de campagne su boobaa nga la way jullit ñi nañ ci moytu suñ kemtaleel kattan loi yi ñu tëral ne xale bu jigéen bala ñu ko maye mu am dix-huit ans loi la yoo xam ne safaanoo nag alquran safaanoo nag sunu aada réew te ñoo ñee ko tëral bu ñu xoolee seeni yaay wala seeni maam sëy nañu avant 18 ans te teewul ñu jur leen am déet loola ñu bàyyi ci xel bu baax donc li ñuy tuddee ay mariage précoce loola ci xalaatu tubaab bi rek la jigéen daal yàlla subhanahu wa taala moo koy may jëmm ba mu am da ngay gis koo xam ne mën na am 13 ans yaramam dëgër dëgër goo xam ne ku ko gis xam ne mën na sëy ca day sëy sans problème xëy na magam mën na am sax 15 ans tuuti tutuwaay boo xam ne matagul ci nekk ci sëy loolee nañ ci bàyyi xel bu baax selon race yi tamit yéemuñu am na race yoo xam ne ñoo gën a gaaw a développer seen bopp loole da ngay gis nay xool ci giiru giiru arab yi da ci daan am loolu tax ngay gis ñu naan la suñu ay Aïcha mi nga ànd ak yonent bi ci 9 ans seen 9 ans yooyu nañ daan mel bokku la suñu 9 ans tey yi loole ñu bàyyi ci xel bu baax kon problème bi mooy waruñu ko def benn campagne daa di koy tëral ay loi comme ni mu nekk suñu réew mi mooy tey képp koo xam ne sa jabar sa sa doom dafa am dix-sept ans et demi nga mayee ko bu dee am na ku dem porter la plainte am nañ bu buñ la jàppee dañuy tëj consentement bu mu mën a doon jëkkër ji nangu na xale bu jigéen bi nangu na ku mu mën a doon dañ lay tëj parce que amoo droit may ko avant 18 ans mbokk loi yooyu nekkul loo xam ne dëppoo na ak alquran dëppoowul ak suñuy aada loi tubaab bi la ngal la waay dañu war a ñaan yàlla ku fi nekk ak ku koy remplacer ñu fexe ba teggil ñu loi yooyu ngiree fitna rek mooy mu lay jur tey xale yu jigéen ñi ñu ngi nekk di xam góor loo xam ne ay 14 à 15 ans loolee da ngay gis ne xeexuñu loolu. loolu moo gënoon a yey ñu taxaw naan maye sëy ko maye avant 18 ans dañ lay tëj mi ngi noonu yàlla na yàlla delloo ñu ila sirata mustaqim loolu mooy tatouage ala kulli xaal yonente bi alei salaam nee na man ta man tashabbaha bi xawmin fa huwa minhum kuy nuru nuru la ay nit ca ñoom nga bokkoo xale yu jigéen ñi da ngay gis ñu jël seen loxo yi def tatouage wallahi yal na yàlla jéggal ma sax ci wax ko ci biir jàkka ji am na ñuy dem marché HLM ñuy tatouage seen dumturunk yi mooy fa nga xam ne fa seen seen gannaaw gi kii yee ay góor ñoo koy tiim di ko defee loolu mbokk ñi yées ci tubaab yi ñoo koy def wallahi tubaab bu baax du def loolu ñi yées ci tubaab yi ak ñoo xam ne tekkiwuñu dara ñoom la ñu gis ci clip yi di ko gis ci film yi di ko gis ñooñu mbo loolu mooy mbalitu occident loolu la ñu jël di ko roy comme sunu xale yu góor yi nekk fi di langal tubay di criss cross nga def ne américain bu baax dana criss cross wala français bu baax dana criss cross mooy ñi yées ci société ba ñoom la ñuy génne bu ko defee nag ngiree mën a noot sunu dëkk yi tubaab bi yooyu lañ ñuy won bu ko defee ñu sàgge na njàng ñu xiirtal ñu ci football bu dul jeex xiirtal ñu ci musique bu dul jeex xiirtal ñu ci lu amul njariñ ngalla waaye xale bu jigéen bu responsable waxuma ñàkk xijaab loolu moom waxuma ko sax waxuma sax ne na nga xijaab waaye même bu la yàlla xiirul ci xijaab it yenn col yu bon yi ndax yéen dégg ngeen luy check down yàlla na yàlla musul ma ci jàkka ji ma ko tudd sax mi ngi noonu xale yu jigéen yi li ñuy xewal sol tubay yoo xam ne du ñu sol sax silip bu ñu jógee toog seen genn wàllu gannaaw gépp nekk ci biti wallahi loolu xam ngeen gis ngeen ko gis naa ko muy fitna boo xam ne ndax ci ñoom la yem et pourtant boo demee ma nga génn ca kër Baye Moussa ak kër yaay Fatima am déet loolee mbokk musiba la boo xam ne dañ ko yàgg gis yàgg gis ba mujj toléré ko kenn dootu ko wax loolee dara gënu ko nekk musiba nañ bàyyi xel ci loolu bu baax yàlla na yàlla laabal suñu société naam bismillah ala kulli xaal nit ki moom bu fasee soxnaam loolu moom moo tax mu la tax mu fase ko moom moo ko xam ala kulli xaal doomu aadama bi am na droit fase soxnaam allahuma lu dul fase boo xam ne da nga caa jublu lor ko su boobaa da ngay gis ne islam du la gërëm ci loolu amma yaa ci defar sa alal yaa ko fase loolu moom sa problème la bu dee gis nga la tax nga fase ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam mi ngi noonu incha allah naam bismillah waaw ala kulli xaal bu dee fuddan islam nangu na jigéen def ko fuddan moom islam da koo gërëm da koo toléré donte ne xale yu jigéen tey xamatuñu luy fuddan yaa ngi dégg mais fuddan sunna la su ko defee jigéen bi di sëyi même bu dul fuddan ba dañ koo dessin bu dee dessin wuñ ko lu am ruux loolee dara nekku ci maadaama ma ngay yemit di ko won ña nga xamee ne nii mooy ay jëkkëram ak ay maxaarimam mooy ñi nga xam ne ni ay jege ñaarem lañu su boobaa loolee dara nekk ko ci nañu moytu rek dessin te fuddan ba dessin boo xam ne dafa am roox mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah bismillah koo xam ne dafay fuddan waaye fuddan bi day tax ba waxtu julli day jot au lieu que mu mu mu mu dindi fuddan bi dem jàppi mu daal di téem ak fuddan bi noonu loolee mbokk loolu ko de xam ne ne baaxul mooy jigéen ñu jëkk ña comme naka yaay Aïcha nettali dañ daan profité di fuddanu jamono jiñ dul julli mi ngi noonu jamono junjul julli yàlla dogal ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent des femmes ah chaque mois am nga ci bis yu dul julli bis yooyu dañ daan profité fuddunu ci loolee tamit benn occasion la waaye même bu dul bis yooyu it na nga xam ne lu lay teree ngay laab moom jullit du def loolu abadan mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw ñu mujj ci mbokk ba la rek xanaa kon bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah waala kulli xaal gis nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan xutba avant muy am minbar ci daan taxaw ci suuf daana téye ab yat mais lu bari ci ba mu waram xam-xam yi dañ ne biñ ko defaralee minbar dafa bàyyi yat boobu loole da ngay gis ne kon mi ngi noonu su ko defee kon daana ba muy taxaw ci suuf daana téye yat ba mu demee ba am minbar nag dafa bàyyi yat boobu loolu it mi nekk ci ne yat bi bokkul ci xutba bi mi ngi aju ci aajowoo ko xëy na mag moo xam ne am na plus de soixante dix ans bëgg a taxaw quinze minutes vingt minutes di ko xutba mën naa mu diis ci moom su sukkandikoo ci aw yat loolee dara nekku ci mais daal nañu xam ne bokkul ci xutba yat ba da ngay gis jumaa yu bari boo demee imam bu ko fàttee sax ñu yëkkati ko jox ko waaye nañu xam ne bokkul ci xutba la nga xam ne mooy yat wa mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk